jaajëf El Hadj ñu taxaw One Lyrical mu génnee album bu nice potentiel One Lyrical potentiel album bi fu mu toll. album bi waaw mu ngi si marché bi gars ñu ngi koy cons donc ñu ngi koy teg donc je vois que ni mu ngi avancé daal mais nànk-nànk ñu ngi continuer suñu promo ñu si tournée médiatique yi su ma juumul waroon nañ def ak yow émission deux fois yoo xam ne nii dafa dafa faussé donc c'était pas de ma faute tamit. yàlla. voilà voilà c' est ça <laughs> dinañ rattrapé wu daal. incha allah instant bi loolu moo moo nekk actualité bi ñu ngi ci promo bi ñu ngi waajal ay concert ñu ngi def ay vidéo affaire yi daal mu ñëw daal. jaajëf wan lyrical nga génnee benn album Sénégal yëpp nangu album Dip Doundou gis génne nga rey sa album génne benn single lu waral loolu. <laughs> loolu moom bëgguma si wax waaye. waaw ci wax. potentiel xam nga comme ni nga ko waxee léegi sama album y a pas mal de trucs yoo xam ne mën nañ ci débat sa débat boobu clos naa ko ba pare quoi je pense que li ma waroon wax war naa question bi ok Sénégal yëpp di werante na One Lyrical dafa waroon jël meilleur album Galsen Hip Hop Awards yi ñu ñëw One Lyrical jëlu ko gars yi na One Lyrical dafa waroon jël meilleur artiste ñu ñëw One Lyrical jëlu ko boobu ba léegi dégguñu mu wax Bah, ça, ça nous empêche pas d'évoluer en fait. Dem si kanam juste Galsen Hip Hop Awards dañ koy rafetlu initiative bu nice la c'est pour le mouvement hip hop. Donc wan lyrical jël ko wala keneen jël ko c'est du pareil au même quoi pour man. Donc pour man lu ëpp solo mooy liggéey liggéey liggéey avancé quoi pas liggéey pour ay awards wala genre affaire yooyu noonu. Gars yi nee da ngay dund ak Abiba. <laughs> no sama ji la donc sama lépp la dañuy waxtaan dañuy joxante conseil dañuy liggéey si musique donc peut-être voilà nit yi tamit lu ñu gis rek lañuy wax quoi. Hmm. dëgg da nga war a prester tey. waaw waaw dama war a jouer ci Ngaaka Blindé bi ñuy des avocats donc ñu ñooy avocats yi instant bii <laughs> léegi One Lyrical gars ñi nga xaar ñi ngi xaar concert ba album bi génnee ba léegi jamoo ñu concert. waaw mu ngi ñëw comme lim la gis nga art Sénégal foog ñu bàyyi di juger si léegi léegi léegi nii quoi artiste boo xam ne nii dafa génn benn projet mu ngi bàyyi projet pour mu nooy donc peut-être juger ko d'ici un an projet bi bu defee un an nga xool ndax def na ay show wala def na lii wala def na lële mais foo pas xama rek jékki-jékki di di wax noo kii dafa war a def lii wala deful lii wala deful lii en tout cas ñu xam na nañ ñu bëgg du dañuy bàyyi nit yi di ñu diriger wala critique yi du ñu atteindre quoi defuñu dara c'est juste que am suñu plan de carrière xam nañ ñu bëgg a def ñu ngi koy topp daal laa lépp di ko def. am na solo mais mun na xaar One Lyrical esat jëwaay xaw ma Amadou Bari 2020. 2020 xaar leen ko fépp pour l'instant actualité bi mooy One Lyrical Stade Alassane Djigo donc c'est sûr pour 2020 début 2020 ñu def ko après voilà yeneen yi ci topp dina ci topp en tout cas qui vivra verra.